Azim académie di école bu mag bu ñu leen ubbil ci Dakar taxawu seen doom yi ci njàng mu wér di enseignement de qualité ànd ak yar ak yee gone yi dañu leen tëralal ab programme bu mucc ayib ne dañuy jàngale alxuraanul karim ci njàng mu sell te wér gone yu bëri yu bàyyeekoo ca réewum États-Unis ñu leen di indi fii ci Al Azim académie ci Dakar ñu leen di jàngal ba ñu fer i ji mën a liir jàngal leen ba ñu mokkal alxuraanul karim ne njàngum alxuraan gi day ànd ak njàngum fiq ak lépp lu jëm ci seen diine Al-Azim Academy noonee la ñu amee programme bu éducation nationale bu Sénégal mu jëm ci français waaye ñu boole ci njàngum anglais gu wér li dalee ci yi ba ci CM2 ñii di xale yi di làkk français boole kook anglais bu leer nañ Al-Azim Academy dañu tàggat élèves yi ci lépp lu jëm ci xarale yi muy wàllum technique moo tax ñu am salle informatique bu yaatu bi ak ordinateur yu doy yoo xam ne élève bu ci nekk da nga toog tiim sa ordinateur am nañ fa ay activités sportives muy lépp lu jëm ci wàllum tàggat yaram yaram muy tennis basket natation maanaam féey ak yeneen xeetu tàggat yaram yi yéen yi liggéey bëgg cours du soir wala cours de week-end Al Azim Academy am nañ fa ay module de formation accélérée jëm ci wàllum entrepreneuriat agriculture infographie alphabétisation wala ngeen bëgg a jàng français anglais ba ci arabe am nañu fa ay jàngalekat yu xarañ te am expérience ci wàllum njàng ak njàngale bu dee inscription xale yi la Al Azim Academy daañu jël li tàmbalee ci quatre ans et demi jàpp cinq cinq moo xam góor la wala jigéen ñëw leen gaaw ndax nombre de places yi dañu ko limité Al Azim Academy mi ngi ci Sacré Cœur 3 immeuble 9496 ci barab bu calme am sécurité jokkool ak ñoom ci 77 778 25 25 wala 33 822 53 53